alhamdulilah dajewuma ak benn dalil day ci boo xam ne day taqale musique ak musique di wax ne lii musigu araab la lii musigu leneen la bii dagan na bii daganut wala muy wax ne lii musique bu xumb la lii musique bu dal la bii dagan na bii daganut déedéet dajewuma ak loolu de ci dalili sharia musique daal liñ ci xam mooy dafa xaraam yëpp nag yëpp musique dañoo xaraam borom bi tabaraka wa taala mi wax ne wa min annaasi man yashtari lahwa alxadiisi li yudilla an sabili illahi bi gayri ilmin wa yattaxidaa huzua ulaika lahum adabun muhin nee na am na ci nit ñi ñoo xam ne dañuy jël li ñu tudde lahwa alxadiis lahwa alxadiis nag boroom xam-xam yi dañu koo firee ne moom mooy musique ak woy mooy musique ak woy Abdullah ibn Mas'ud dafa waat ci yàlla ne moom la kon alquranul karim ci boppam moo jëkk xaraamal misik yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu wax ne sa yakunu min ummati qawmun yastaxilluuna alxira walxarir walxamra walmaazif rawahu albuxaari yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee na dana dem ba ñëmmi jamono am ci xeet wi ñoo xam ne yu xaraam yii dañ koy jàppe lu dagan ba ci jëkk mooy alxir te muy njaaloo dem nañ ba ay régime am na yoo xam ne dañuy wutal jigéen carte mu dem di njaaloo kon la yonente bi alayhi salaatu wasalaam waxoon dikk na foofu wal ci xeetu col yi la gisees na góor ñu koy sol te dafa xaraam ci góor wal xamra sàngara noona nit day ñëw ñaan autorisation ñu may ko mu ubbi baar di jaay jaay sàngara te dafa xaram chariatul islam mu ne nag wal maazif ak instrument yi nga xam ne dañ leen di fëgg mooy musique jumtuwaay yi nga xam ne moom lañuy jëfandikoo ngir di musique moom doy na jullit bi xam ne dafa xaram lépp loo xam ne yàlla daf koo xaraamal ak lu mën a doon eh, jullit bi daf ko war a daw lu tax mooy jullit bu nekk yaa ngi jéem a góor di jaamu yàlla yaa ngi jéem a def lu baax lu xaraam loolu li ni mu mel mi ngi mel ne yaa ngi yoroon sa lu baax a baax loo xam ne da ko fonk ci waxtu wi nga koy fonk ak di ko raay ak di jël di xool di dencaat yaa ngi taal sawara mu di ko lakk yaa ngi taal sawara mu di ko lakk kon ñaawteef yooyu ak bàkkaar yooyu day lakk day lakk tuyaaba yi muy def loolu moo tax jullit bi lépp lu xaraam daf koy daw déglu musique li ci ñëw ci ay xadis yoo xam ne daf koy tere ak di ko ñaawal bari na lool doy na ci benn xadis bu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam di wax ne kiy déglu yu mel noonu yowmal qiyaam bu ñëwee dañuy jël beteex beteex mooy nga jël benn aluminium euh, togg ko baxal ko ba nga xam ne boo sottee day sottiku mu ne moom la ñuy jël di ko sotti ci nopp yi diko ko sotti ci biir nopp yi kon loolu jullit bi su fekkee xam na lu mel noonu daf koy dawal boppam teel ak lu bari bari nag lu bari ak lu baax bokkut nit ñi léeg-léeg ñu ne ah waaw lii moom su fekkee ne dafa xaraam noonu kun fun jëm parce que nim mu baree waaw ni mu baree fexeel yow ba du ca bokk qul laa yastawi alxabiis wa altayib walaw ajabaka kasratu alxabiis loolu la suñ borom wax borom bi nee na lu baax ak lu bon duñ yem mukk donte li bon sax dafa dem ba bari lool donte li bon dafa dem ba bari lool la baaxoon démb rek mooy baax ba tey la bonoon démb mooy bon ba tey mooy bon itam ëllëg kon su baree ñi koy def fexeel ba yow nga doon kenn ci ñi ko dul def loolu moo lay musal yow jullit